tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi ko di jenxëy di ñu xibaar naan ñu ministre bi ñu dénk kaaraangi réew mi di ministre ma ngi woon ci cérémonie u laayeen yi ci appelu Seydina Limaamu Laay Almahdi moom ne du bëgg a yee fitna ci réew mi loolee du ñu ko bi di ministre bi ñu dénk kaaraangi réew mi jamono ji ma ngi dànkafo gaay yi nga xam ne ñoo bëgg indi ak pëccëxoo ci réew mi ba tey ci journal bi moom ministre bi nee na Sénégal dañu ko war a aar ndax jàmm ji nga xam ne moo fi nekk dañu ko war a wagara Seydina Issa Limamou Laye jàmm la woote kon jamono ji nañu woote jàmm def jàmm ci réew mi Imam Makhtar Laye moom tim yëkkati na ay kàddu mu ngi ci biir journal bi daan nay wax ne yee fitna baaxul te kenn wuru ko def ci réew mi waaye tamit yàqante der gi nga xam ne moo am ci réew mi ak tuumalante geeg tooñ ge loolee tamit war nañu ko bàyyi journal bi di évidence nee bu ñu waxante dëgg ministre Antoine Diome ak discours bi nga xam ne yëkkati na ko ci cérémonie officielle appelu laayeen yi Ousmane Sonko la doon gaaruwaale journal bii di 24 heures ñu xëy fekk fa El Hadji Malick Ndiaye mi yor communication Pastef daat nay wax ne nervi yi nga xam ne gis nañu ko ci Sénégal ak mercenaires loole nag la muy firndeel mooy Sénégal ma ngi ci danger journal bii di Libération xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa SONES dañoo jëloon benn marché boo xam ne ëpp na juróom-ñaari milliards ci lu jëm ci wàllum travaux de fourniture ak pose conduite d'eau potable daal di koy jox groupe Sénégal ñi nga xam ne nag ñooy waa ARMP dañoo daal di gàntal marché boobee dañu koo annulé dañu koo daal di dakkal la nga xam ne moo ko waral bokk na ci appel d'offre bi nga xam ne amuloon nañu ko juróom-ñaar ci entité ñoom ñoo bokkoon ci appel d'offre boobee nag waaye ginnaaw bi ñu ko joxee groupe Sénégal BTP ñi nga xam ne ñooy waa groupe Africa Bloom ñoom dañoo defoon recours la ko waral bokk na ci ñoom nee nañu la ñu proposé woon ci même service bi juróom benn milliard la yu fegg ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay millions maanaam ñoo gën a tuutale koppar yoo xam ne moom la ñu proposé ñu jël marché ba jox ko groupe Sénégal BTP boo xam ne la mu proposé ëpp na juróom-ñaar ci milliards ginnaaw bi ñu defee nag ab recours ñi nga xam ne ñooy waa ARMP jàppee dañoo daal di gàntal marché ba yéen kay gi di wal fajiri xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall ak ñi mu àndal jamono ji ñoo ngi ci làmb tugu rëy maanaam tâtonnement ci la Macky Sall nekk ci nomination yi nga xam ne ma ngi koy amal maanaam di roof ak rob ministre yi ak directeur généraux yi Abdou Karim Sall mi nga xam ne moo fi nekkoon ministre environnement te ñu jëlee ko fa yóbbu a nañ ko ARTP ga nga xam ne fa la nekkoon Abdoulaye Diop mi fi nekkoon ministre ñu génne ko yóbbu ko fa mu nekkoon ay jamono di koseka Mame Mbaye Niang moom tim lu mel noonee dal na ko journal bi nee na Ismaïla Madior Fall moom tim ci atum 2000 2020 dañu ko defoon ministre bi ñu dénk wàllum yoon jële ko fa andi waat ko fa journal bi di wal fajiri na mu ko gisee mooy Macky Sall jamono ji ci ay làmbatu la nekk maanaam ay tâtonnement yéen a gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Thomas mi nga xam ne moo yor communication Pastef ci diwaanu Kaffrine mandat nañu ko dépôt moom sax ab jàngalekat la ci lycée technique Cheikh Amadou Bamba bi ci Diourbel journal bi nee li ñu koy toppee mooy cinquante cinq militants ñoo nga fay nelaw jamono ji ca kasu ba maanaam juróom fukk ak juróomi militants yi Ousmane Sonko ñoo ngi ci kasu bu Jurbel yéen kaay gi de la Tribune nee na nomination yi nga xam ne fan yi ñu génn def nañu ko ci conseil supérieur de la magistrature jur na malaise bu rëy ci biir magistrature bi la nga xam ne moo ko waral dafa am ay magistrat yoo xam ne dañoo gradé maanaam ba mara détaillé ñu daal leen fiy bàyyi loolee moo tax jamono ji journal bi li mu gis nee na malaise moo fa am yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora nee na nga xam ne ay magistrat lañ yoo xam ne maanaam dañu leen a mbedd yi mooy magistrat yi nga xam ne ñoom dañoo moom seen bopp maanaam magistrat yu indépendant yi yéen a kaay gi de la point quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu directeur général bu AIBD aéroport international Blaise Diagne di Abdoulaye Dièye dafa daal di benn pétition boo xam ne maanaam un million de signature la bëgg ñi nga xam ne ñoo bëgg président Macky Sall présenté waat ci élection présidentielle 2024 ndax nee na signature yooyu nag bu ñu ko amee dinañu jéem a convaincre njiitu réew mi di président Macky Sall ngir mu amaat benn mandat boo xam ne cinq ans lay nee na sax ñoom dàq ñu benn yoon forcé Macky Sall ngir la ko waral mooy li mu def ci réew mi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu élection présidentielle yi fukki weer ak ñaar moo si des ji nag démocratie Sénégal dimul ci nga dikkul mbay laara la ko waral mooy élection yi léegi tey mu agsi te processus électoral bi jamono ji ci point mort la nekk révision exceptionnelle liste électorale yi nga xam ne ministre de l'intérieur annoncé woon na ko dañu ko suspendara yéen kaay gi da la témoin nee na coalition Yewwi Askan Wi jamono ji opération wër ndomba ndax ci biir coalition Yewwi Askan Wi am na juróom ñoo xam ne nee nañu ay candidat la ñoo yéen a kaay gi di réew mi ko di jenqëy duñu xibara naan ñu Mohamed Sis mi nga xam ne moo fi waroon a ñëw ci Sénégal ngan googee dañu ko foom ndax journal bi nee na dafa daal di grippe yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna ma ngi interpellé di dànkaafu di yéegloo di woote wàllu ci lu jëm ci anam bi nga xam ne moom la ñu yore budget assemblée nationale yéen kaay gi di sunu làmb xëy duñu xibara naan ñu rëg-rëg ma ngi buum di bu mi ci biir géej waaye ndax am na fa lu toll ci ñeent ci victoire am na fa benn nul la rëg-rëg jamono ji li mu bëgg mooy daan Sa Thiès ba pare daal di laaj ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2